wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayaamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Xadim noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel waxtaanu tey dafay jokk rek waxtaan yu nu tàmbali woon ci ajuma ji weesu mu jëmoon ci solos jikko ju rafet jotoon nañ ci indi ay bind yaatu xamle wàccuwaay bi mu am ci lislaam waaye solo soo si mu am nga xam ne jikko ji rafet rekk mooy lislaam moo taxoon sunu yaakaar seexul xadim li ëppoon ci liggéeyam mu jëmale ko ci luy defar jikko te mooy tarbiya te Sëriñ Tuubaa yeesal gi mu yeesal lislaam ci yetti yëf la ko defee muy taalif ak jàngale ak yare loolu mooy xam-xam ak jaamu yàlla ndax taalif ak jàngale lépp ci xam-xam la jëm kon xam-xam mooy laltaay bi waaye tërbiye nag ci lay defar jikko yi tarbiya yi mu doon def nag eh, mën nañu jàpp ne ci juróom benn yëf la ko doon mooy jumtu mooy jumtuwaay yi ak ci lim jëm bi ci njëkk ci jumtukaay tarbiya mooy bii atun saaliha mooy barab boo xam ne dafay méngoog liñ bëgg a def ci ku ñuy defar nga xam ne kañ fay defar liñ bëgg a def ci moom du fa gis lu may loola du fa dégg lu may loola sori mbooloo meeg coow li soit def ga ñuy def ci moom lañ ci bëgg a def day yomb ndax leneen lu koy soppi du fa nekk ma war a sanc yim daa sanc Tuubaa gii loola ko sabab daaru salaam nga ko jiitu woon loola ko sabab mbàkki bari ci jël fa loola ko sabab ñam sanc lu ñam ñam digal ñu sanc ñéppit loolaay sababu sanc ga muy defar jikko ba ko ñaareel mooy xudwatun xasana royukaay bu baax nit dafa baaxoo munta ñàkk roy te la muy roy mooy la muy gis ka muy roy mooy kamuy muy gis ngir li nga def ci moom yomb nag dangay ngay fexe ba la muy gis ak ka muy gis yëpp lam lam cay gis doon li li nga bëgg a def ci moom li nga bëgg def ci moom na doon la muy gis ka nga bëgg mu mel ni moom na doon ka muy moo tax li indi seexal ci yoon wi mooy rek mooy in mooy mooy xudwa xasana mooy day defar nit ba mu jag mu boole kook mbooloo mu ne ca kanam mbooloo moo nekk seen wa xasana nekk seen roykaay ñu ñuy roy ci moom mu deen mu deen mu deen teg ci yoon ci njalbeen moom ci bopp jëmm la daa doon moo daane ci seen kanam ci njëlbeenu yëf yi fexe ba defar jëmm yoo xam ne nag eh, mat mat nañ lañ lañ doon sëkk ba tax bi mu dem bi ñu ko yóbboo it lam fi bàyyi woon dara sooxiwu ca dara soppiku ca ndax defar na ay jëmm yoo xam ne wut nañ ko ca lam doon def loolu na mu def ca mbooloo moo xam ne mag boroom képp ñoo xam nañu toll te ñam defar nag ñëpp a jag ñi sëñ Tuubaa defar ñëpp a jag te sëñ Bay Jaxate waxoon ne ko defar nga say bokk defar aw jaambur ba ñëpp jag nga jàpp nag sag jaambur jag gañ jag nag maanaam mu sant yàlla ci ñoom ci seen melukaan yax li yan qaada an jaabun yafuzuuna bil muna wa ma aqani an shukri mawlaaya asbaabu maa ngi sant borom mi nga xam ne moom womatal tànneef yoo xam ne maa leen defar ba ñu jag ba liñ bëggoon lépp ñu ko kon amul benn sabab buy dox sama diggal sant yàlla kafaani xafidun maani on jumlatal ida wali qaada ahbaban bihim udhirun nuska sama borom mi aaree ka musle moo fegal samay noonu mu daan woomatal ma soppe yoo xam ne maa defar ba ba ba ba bañ ne jàkk xam ne jaam xam ne jaamkat kon defar googe ci xutwa xasana lañ ko lañ ko amee gannaaw bi atum saaliha boobu ma tuddoon léegi bay topp mooy daa ne leen yar ci xam-xam jumtukaay yari xam-xam ci la bokkoon ndax xam-xam mooy laltaay bi nga xam ne lépp lu lépp lum lëlut moo xam jëfi yàlla la jëfi jëm ci yàlla moo xam mbir mu adduna la su ko xam-xam lalu rek lañ ca bëgg dëgg mën nañ ko ca bañaam day mel ni ki bëgg a tabax bâtiment te jiitul fondation noonu lay mel mën naa taxaw de waaye bu tabaxee ci ci mabbu la jëm mbaa sax du taxaw far moo tax xam-xam doon laltaay bi jiitu ci lim doon tarbiya aw nitam ñeenteel ba mooy jaamu yàlla jaamu yàlla moom rekk tax sunu borom bindu moo taxit mu indindu fi ye jiitu woon yëpp muy yar baag njàngamaag yëpp jaamu gi lay xàllal aw yoon moom lañ lay doya kon lay tax jaamu ga jag yooyu yëpp loolu mooy mooy da koy waajalal lay tax jaamu ga jag mooy xam faw ñu jaar jàngal faw faaw ñu yar la ba tax bu jaamu ga asee mel na mu a mel doon lu suñu mën a nangu ndax suñu boon lu sell lay nangu te te te jëf mun ta sell te xam-xam laltaayu ko jikko ju rafet laltaayu ko ba ba muy tagg sax gaa yu baax yi di wax seen bi ko dafa ne ñi ñi topp seen gannaaw seeni sët suñ toppee ci seen tànki maam yooyee roy ca seen mbaax ga ca seen gëm yàlla ga ma yéega leen ca seen maam ya donte jëfuñu la seen maam ya jëfoon walladina amanu wattabaatum zurriyatum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim ba mu tuddi ñaanuk malaaka yano arash ak la ko wër ca seen ñaan ga rabbana waa nu jannatin adnin li te wa attahum wa man salaha nga gis na bi waxtu nekk day ñëw wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim kon saa buy tudd rek day wax ma ña leen roy ca melokaan wa sët yi daal xam roy bi imaanin la wax imaan nag day yóbbaale ya ko jiitoog ya ya koy yépp mi salaaxu gaag eh, sell gaag jikko ju rafet jaag lépp ak doxin wa ndax salaaxu mooy liy musle bis ji te salaaxu nag mën tam lu may dafa tekk ci kaw ragal yàlla ragal yàlla itam eh, mi ngi juddoo ci takkaayoo jikko yu rafet yi ak mayutu jikko yu jikko yu suufe yi moo de Sëñ Tuubaa moom foofa la jaar dafa jël tek teg tànkam fi ko yonent bi sallallahu alayhi tegoon di ko roy ci zahir ak ci batin ba mu doon ko ci zahir doon ko ci batin wax ne uma jenn yitte walla lenn lu may sàkk lu dul roy yonent bi roy yonent roy ko ci roy xol ak roy jëf laysat yowma xaajaatun u ammiluha si waqti faayika xaf wal xalbi wal badani xaful xalbi mooy roy ci jikko xaful badan mooy roy ko ci jëf neen nag roy googi nag lama am lépp nag ca laa ko amee ba tax mu ci sant yàlla xamdal rabbi xayri mu rabbi xad ramma qalbi bi laqtidaai maay sant sama borom ndax yewinal na sama mbir defar na sama mbir ci lan la ko defare mooy ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa kon roy ga ci xam-xam ci jaamu yàlla ba ko mooy daan defe seeni jikko méngale leen ay teggin ndax jikko nee naa la mooy li ngaan su baaxee lépp nit ki baax su yàqoo léppam yàqu te jikko ci xol lay nekk moo tax xol la ñuy defar xol la ñuy tërbiya xol la ñuy sellal xol la ñuy laabal bu xol ba jagee lépp jag na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee woon ne fi fil jasadi mudghatan ida salahat salaha al jasadu kulluha wa ida fasadat fasada jasadu kulluha ala wa hiya al am na ci jëmm wenn suux wow su baaxee jëmm jëpp baax waaye su yàqu it jëmm jëpp yàqu daane suux woowee nag mooy xol maa tax kon daa leen yar ci tërib ci ci méngale ay teggin dafa seen jikko méngale ay teggin ba tax na la lalal yoon wi mooy mooy mooy al adabul mardi mu teggin yu ñu gërëm foofu mooy mooy xaaya ba yi ci des yëpp njaal benn la waaye xaaya bi nag mooy al adabul mardi ba ko benneel mooy daane leen tërbiye ci liggéey ndax liggéey mooy li nga xam ne ci la as gor mu ne wéer gannaawam ba sàmm goram sàmm diineem yooyu ci la as gor mën a goor ba sàmm goram sàmm diineem soo liggéeyut benn nga dem di tàllal loxo dal di ñàkk sa ngor mbaa nga dem jalgati ji ci jël alali jàmbur walla nga ci walla ci wor walla ci ger mbaa yu daal di ñàkk sa diine Sëñ Tuubaa nag jàngaloon lu ci lu am solo bi muy naal ak a mébét jumaay ji nu nekk tey ci njaareem mas na ca topp bi aw sas kon na bu nekk joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett te jooju jamono mag ñi tuddee woon ko njotug bopp ñépp joxe ko ba jotoon nañ caa dajale juróomi million ci jooju jamono ku dajale bàggal mu woote ba ñépp daje may leen dama leen bëgg a leeral li taxoon ma di leen ko laaj mooy dama bëgg su ëllëgee lépp lu ngeen bëggati na ngeen def nii te bañ sukkandiku ci keneen ndax keneen ko sukkandiku ci moom saa su lay manal daal di lay sañal te ka lay sañal na yàlla na fekk muy ko la war a sañal kon ni murid di doxe mënu ko jàngaloon muy sukkandiku ci sa bopp lu am solo la wolof danay wax ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa de waxin ne ku la abali bët nga xool fa ko neex waaye soo fexee ba moom say bët nag fa la neex ngay xool loolu ba tey noonu la yoon wi doxee mooy lépp ci seen bopp lañuy sukkandiku loolu bokk ci njàngaleem ak tarbiyaam moo taxoon mu bañoon lool kuy dem di toroxlu ci kanamu borom alal diw la am diw am na alal tax nga wàcce sa bopp toroxlu ci kanamam donte sax ka ngay toroxlu ci moom am na salaax may saalix la nit ko baax la jaam ko te waaye alal jaa tax ngay toroxlu ci kanam sa sa diine bu doon ñetti xaaj ñaar yi ñàkk nga ko fekkee kooku du saalix nag zaalim la dese wala tol ne fépp suuf ci sa diine ila alganiyi saalixi yudhibu thuluthay diini kulli saalixi amma tawaadoon li zalimin fala yubqi min addiini la yaadan oqila loolu kon doon xel ci juróom benn la doon tarbiya moo tax ñaan defar ñëpp jag ni ñu ko waxee léegi nga xam ne ku mu yar seenu doxin ak seen jikko da koy mën a méngale doxinu as-sahabatul kiram yal yàlla gërëm te ñoom sax leen daa joxante leen wax ne saxaaba yi ñooy seeni bàyyi ci diina na ngeen leen roy ñu roy leen ba doon ñoom ci ko ci tedd nga ci sell ci mbaax ci fànn yépp ci koy rafet yooyu nag benn boo ci jël mu dey sëkk waxtaan bu tànnee benn bu am solo bu mataroye sëriñ bi mooy al afu indal maqdira mën a fayyu ba noppi jéggale waxuñ ki ñàkk pexe waaye am mën ngaa fayyu am nga kàttan gi am nga pexe mi mën ngaa fayyu ba noppi nag tànn jéggale moo wax ñoom sax ne ko xutil afwa baabul bi loo fi mooy da ko tànn loo jéggal ci buñ ko tooñee faafu anhum yëpp foofu lay tàbbiwaat loolu la Sëriñ Tuubaa doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa lool lool yéen saa sal mën nañ ko nettali xissa yu baree baree baree bari ci yu mel noonu am na benn arabi yu mosu ñu fekk ko mo ci benn barab moom képp mu tëdd di dallu di nelaw mu tiim ko bocc jaaseem xàcc ba ba jekk door ko yee ak tànkam mu ne xefeet ne ko jàkk mu ne ko ana kan ana tey kan moom da benn benn saabi néew fa mu ne ana kan mooma def sama diggante ak yow tey ci ci ci ma far sabakan mu ne ko jàkk ca fidwa ak njàmbaar ga ne ko allah yàlla bi ne yàlla nag axaraab dafa tiit di lox ba jaas yi rëcc ko rot mu jël jaas yi moom yi saa si taxaw tiim ko ne ko yoon na ko mën a dox suñu diggante mu ne ko kun xayra axidin yow daal doon ku gën ci ko jàpp ak mu ne ko jégal naa la demal diggante ku ñuy wax Umayr ibn Wahb ab ab ab ab yahud la woon ñëw fekk ko ci mbooloo mi poñe ko poñe bu dëgër ba gësam ko ne ko fay ma saw yéen yéen sëti Abdul Mutalib du ngeen fay bor fay ma bor bi mu ne tekk bàyyi ko bam ba si naaw sax ne bëreet gëdd ko ba ba ba bi tiit Umayr ibn Wahb salaasan ne ko Omar kii de ni nga doxaleeg moom ak na ma bëggoon doxaleeg moom du benn ne ko kii dama ko ameel bor mu dema ma fayu si kon danga maa waroon wax ne ma fayal bor moom nga ne ko mu rafetal nu muy fayoo bor ne ko nag bor bi day dig ba ñu waxante woon des na ñetti fan daal koy fay ba mbat tegal ko ci yeneen ñetti àndaar ngir neexale ko ci gëdd gi ko si naawam bër gëdd def naa jikko ji rafet mënu ko weesu Sëriñ Tuubaa nag donn ko ca loola ci bi nettee digganteem ak naar bi yoxan naaya ji ca gànnaar ca xumaag tubaab yi yebal ko am luñ ko lim buñ ko dig ci alal nekk boo fexee ba faatal nu bakkanam day dañ la defal nangam nangam mu ñëw wone ak njébbal ne day jébbalu sëñ bi xam na lépp waaye bind ay bayit jox ko bayit yewen bayit rek laa ci wax waaye su yewoon rek dana xam ne sëñ bi xam ne li ko tax a ila siwa yadurruka shaytaani maa lahuma alayya min sultaani man de lor ak seytaane mëna luñ ma dara teguñ ci man aw yoon kon xam naa la ko tax a jóg nekk doo ko jàng bi su set bayit yi te de ko bale surtout yaasin xam nga yosu yaasin itam ak lañ ca wax mu di ko jàng bi su mel ni kuy nodd xëj yu fi incha allah buñ desee yaatal ko waaye daal la la lam jaaxale mooy mooy ba mu ñë ba ba bi ko tubaab yu yóbbu ba ba delloosi ko xam fa xam fa tubaab yi daay turaan la wax jéggal naa ñëpp. salaaxe bi islaahin wa afin bila zulmi daa man xalaw ni li tabarroi wa salmi yàlla na sunu borom boole dimbale si amatulaa si amantaxaa yàlla na fa yàgg lool te wér lim naa la Sëriñ lépp yàlla na ko àggale ba mu sotti coleet te jiite na ko lu yàgg-yàgg sunu borom boo dimbale boo leen defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg-dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu du sunu taalibe wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuh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 أشهد أن لا الحمد لله الذي وجب حمده على ما أسدى وتعين شكره على ما أهدى فإياه نحمد وبوحدانيته نشهد ومنه نستوجب ما هو عائد منا لرضاه ونستمنح ما يحبه ويرضاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واجتهدوا في مخالفة النفس والهوى وهذروا عقاب من يعلم منكم السر والنجوى ألا وإن الأرض والليالي والأيام والأموال شاهدة على العبد يوم القيامة بما عمل فيها وعليها قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها فاعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه وتعرضوا لنفحات ذي العزة والجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمآل وأخلصوا النية fa innama al a'malu bin niyaat wa innama li kulli mri'in ma nawa الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء وأضل وقال والصلاة والسلام على سيدنا محمد داعي الرشد والفلاح وأصحابه الفائزين بغاية الهدى والصلاح أما بعد فيا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أسفق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموت صبر على اللذات wa man zahida fi dunya haanat alayhi almusibaat wa man araada annajaata min alazamaat walwusuula li acla almaraatibi wa asrafi addarajaat falyuksir min alsalaati waltaslimi ala malaadi alwara wa safiici almaxluuqaat اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات واجعلنا يا مولانا من المرحومين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من الأشقياء المحرومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا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 allahu akbar sami allahu liman hamidah asalaamaaleykum. asalaam.